mais ñoom dañuy dem ci njort rek yow doo gis njort rek laa wax njort am de mm, nga topp ko mais pour pourtant ñi agent secret yi dañuy njort dara rek topp la topp ko ñaaree dafa am yoo xam ne nii ñoom it dañuy njort benn affaire te nag dañoo am ay façon xam-xam seytaan yoo xam ne nii yu bari dañ koy gis mais yooyu wérul baaxul mm-hmm. mais bi may wax nii man ne André André mu ngi jógee Amérique ilu Amérique lay jóge André yàlla na ko yàlla dëgëral mu nga màkk tey tuub na ba dem mu ngi màkk macha allah ma waxtaan moom ma ne ko André waaye yéen lii seen liggéey mu ne ma ñun lii mooy suñu liggéey mission yi gën a mag ci àdduna bi ko chef de l'État yi soxlaa ñun woo bu ko ministre yi soxlaa ñun koy exécuté ma ne ko waa lu indi fii mu ne ma dara dañ na fay yónni lu tax parce que dafa am sacrifice bu nu def rey nañ juróom-ñaari nag. te danoo war a rey sept personnes loolu mënut a sept personnes yi ñu ngi ko war a rey diggante Thiès Diourbel ci benn sept place décidé woon ko mën naa jour la 21 la waroon doon man kii li 21 man bi isni laa du am ma woo ustaz benn ustaz sama ñaari ustaz ma leen ah xabaar am na te yëg nañ ko incha allah nañ ci jihaad te yëg naa fu ngeen jaar ak gars yi bu baax a baax a baax dana bëgg ngeen dolli nu ñaan mu ne ah ma ne wax leen mu ne ma dellu di dëggal ma ne ko na def ñu ñu defal lu ñaan. yàlla 21 bi amul mais fan yooyu mooy li gën a jafe ci sama dund. day métti ci yéen. ñun xeex guddeeg bëccëg mais bi isnillah yàlla may ñu ndam ci seen kaw. kon lu leen xeex ci def lu bon. parce que dañ leen ko def loo dafa am ku bëgg a falu bëgg a falu mu rey leen jox leen juróom-ñaari nag ci condition yi parce que bu nu fàttee ni li ñuy tuddee ay franc-maçonnerie ci yooyu lañuy ñuy dox franc-maçonnerie xam nga franc-maçonnerie wala da nga koy dégg rek. Mm-hmm. ah mm-hmm. ah doy na waar. non bu doy na waar waaye dama ne ñoom franc-maçon la ki may wax ñi may wax nii. Mm-hmm. ay franc-maçon la genn wàll gi franc-maçon la. am na ñoo ne ay junne yu mag la ne mais duñu franc-maçon. d'accord ko tuddee sax. ñu bëri di ci mais du damay wax ni. moo doon comme la ma doon wax ci man attaque ma kenn waxuma ko mais xam-xam la ñuy leeral. te xam-xam bi mënoo dem ci téere yi bëri fekk ko wala banoo xam-xam yi koy wax kon jafe na de. waaye damay wax ni. nit ñi bëgg àdduna wala bëgg pal toujours ñooy gën a def sacrifice yi. di tuur ay deret. deret nit. te dafa am junne yoo xam ne ci wàllu franc-maçonnerie deret nit rek lañ bëgg ci àdduna tànk yaa ngi leen di jox deret nit dinaa la yëgal leen de Maodo di dinga dem ba waroon la doo wax sax ñu fexe la téyel sa làmmiñ ba ngay wax Maodo àgg na foofu ci ñoom. di leen fexe ba do bu doon élection doo ñëw tey jii ba ñëw ba ci urne yi ñu ñu ñu jabar la te doo yëg sax koo wateel. d'accord gis nga moo tax ku ku yaakaar ni yëf yi yëf yi hmm. ci tubaab yi gis nga tubaab yi ñoo dàq jibar ma wax la loolu xam nga ñun dañuy wax fii ñuy tudd ay jibar yeeg yi mais tubaab yi li ñuy jibaree moo gën a yeme fan yi passé benn jigéen bu jógee Italie bu may nettali sama rongo di bëgg a wadd mu ñetti doom ñëpp franc-maçon yi bëgg koo lekk mais damay wax naa ma bu duggee ci hôpital bi te it lekk gi ñu ko doon mais kooku mais li ngay wax ni c'est très compliqué. moo tax junj la waaw <laughs> d'accord waaw junj la xam waaw d'accord mais xam naa ñu wàccaat tuuti parce que li ngay wax dafa kawe lool. dëgg la pour comme ça ñuy seetaan war a am luñ ci luñ ci jariñoo. Hmm. léegi nag kon dañu wax ne addu'a u silaaxul mu'min euh, ñaan mooy gàllaaju jullit bi mhm. kon naka lañuy ñaane dañuy jàpp julli sàll suñuy borom waaw loolu dina am hmm. nit dina to xam nga ci wàllu ñaanit hmm. dafa am charte ci hmm. yàlla moom sallallahu alayhi wasallam wax ni da lekk lu lew du dëkk di sol lu lew waxul lu set de lu lew la wax. Mhm. gis nga nee na nit koo xam ne la muy. lekk lu laa wax rek lu la nit la muy lekk lewul. ndax xam nga lu sell mooy la muy sol lewul. Mhm. waaw kooku mën na ñaan yàlla mu nangu. nañ ne làmmiñ buy lekk riba moom bu ñaanee du nangu. waaw mais wax yaxub xadis la yonent muy lekk lu le lu lu lewul. la mu sol lewul. waaw kooku naka lay ñaanee yàlla mu nangu du benn nga. ñaareel ba it bu nu xoolee yonent yàlla moom salaam wax na ay heure yu bari yoo xam ne nii yàlla da ciy nangu ñaan. Mhm. waxuñu ko. ok waaw. beneen bi ci des mooy yow nit ki bu fekkee ni jàpp na ba sell julli ñaari rakkaa la mu aajoo mu muy def salaatul xaajo. Mhm. aajo jii kat am naa ko laa maa ñëw fii de damaa def salaatul xaajo. Mhm. yàlla dase la nu. <laughs> mu ngay mais bu dul loolu du ma ko def. yàlla maa ngi ñaan mii ma waxtaan bi ma bëgg a def ci amay doon nga yombalal ma ko ma am ko mu ne ma hmm. ma def ko yàlla yombal ma ñëw ma hmm. loolu la jullit bi nekk war xam nga ñun suñu Afrique bi mooy ñaan lu moo leen gënal ñaan ñaan lu moo leen gënal ñaan ma léeg-léeg nit mu ñëw fi ma di ko faj dama ko xool ba jàng ma xam ni kii bu ñaanee yàlla yàlla mu ko hmm. dama koy orienté rek ñaanal ko mu dem ma ne ko orienté ko yow góor-góorlu ñaanal sa bopp waay booy ñaanal sa bopp yàlla di la dimbali. te sellal ko waaw waaw parce que non kooku sell lay doon da ngay gis jigéen ñu baax góor ñu baax peut-être li nu gëmee ñaanlu dafa ëpp ñaanlu ñaanlu lu mën a doon gëm ñaanlu te jër ñaam gëm gu ëpp baaxul gëm day yem diggu doom lu mu mën a doon nga jël teg ko foo xam ne euh, euh, ëpp na mais seetaane jaare la fa lu dëgg nit ki dangay ngay diggu doom waaye am na koo xam ne mbaax ga ca moom wallaahi moom moo bu ñëwee sax da moo la war a ñaanal mais dafa xamul la ca la la mu yor léeg-léeg nga ne jàkk nit mu wax la ay ñaafilaam wax la ay saraxeem wax la ni mu dogoo. ci yoonu yàlla ci yoonu yàlla yow 3 heures du matin 4 heures du matin di naafila guddi du di mu jëw góor lu mbaax am ay problème mais kooku dafa am loo xam boo ko orienté rek sa waay mu xam day daal di gën a kii parce que li ma la wax ci xam-xam dafa am xam-xam yow dafa làqu nii rek. Mm-hmm. mais nag borom xam-xam yi nga xamee ni ñoo am expérience yooyu boo dee jigéen ñoom ñu lay woon yi bari dangay dem ba man ndax mënu ma woon dara. Mhm. mais borom xam-xam <laughs> sunu stage ñoo ñu dimbali orienté na ba yu bari ñu xam ko. Mhm. nii nii la nii la la boo demee ba gàkkat ci mbir mi nii nga koy doxale ñu ne ah ah ngay def ba jàll. loolu nag dafa am ci nit ñoo xam ne nii mbaax ganu baa. Mhm. alors euh, boo woowee rek ni ko defal li vraiment da koy def te yàlla da ciy def tawfiq. d'accord yàlla da ciy def taw tawfiq ni may signaler na ma waxtu wi daanaka tuutee ci des léegi nag. ma fàttali ne Serigne eh, Cheikh Ndiaye mi dëkk ca Thiès ku yàlla may xam-xam la ci yii mu wax mu ci xeet li ñu bari nag ma fàttali ne numéro téléphone am mooy 77 656 72 01. 77 656 72 01 léegi nag. waaw fi boole lépp loo koy looy boole tëj. ndax 3 minutes ñu def li may tënk daal mooy. Ah, ah. ñu gën a góorgóorlu ci wàll ci yàlla. Mm-hmm. te xam ni puxaabe yi ñu topp. Mm-hmm. ak adduna bi ñu topp ngir ay ndombe tànk ngir ay daraja. ngir bëgg ñu lii moom danga ko fi xam bari na ci fi mu ne boo duggoon université borom xam-xam yu bari ñoo leen gemb étudiant bu fi am bopp boo xefee ñu rey la wala ñu génn la ci lislaam te tur wi rek te léegi xeex bi nuy xeex da lay bàyyi sa tur rek ngay julli nii mais yàq na la cëb la ci biir moo tax ñu bëri ci université daanaka doon gis ni fës dañuy jàng normal rek dem parce que dañu teg seen tànk ci cadre yi ku moo tax cadre yee gën a doy waar te njibar yi leen di njibar nu ko comprendre ndax njibar li nga xam mooy fasaki génn yi mais ñoom njibar yi ni njibar jox la loxo rek njib njibar la da dëgg ci te xam nga ni njibar jox la ci gën a gaaw hmm. soppi nit léegi léegi léegi changé ko dugal ci moom dara mel ni lu ko maas ñoom ñoo ci gën a gaaw surtout ñu nekk France ndax ñu gën a bëri France ak ak euh, duñu ko Canada. d'accord ñoo tax su fekkee ni bàyyiwul xel borom xam-xam yi dañuy mujj cadre yoo xam ne ñu weddi yàlla rek la ñu am léegi façon bi daal yàlla amul de dëggatoo ko ci mais léegi si xalaat yi leen dugal te ñoom ñoo gën a mën a yàq ci diine ji. dinañ fexe it ba ni kilifa diine diine da cay nekk taxaw muy mbubb mu waaye kenn du ko sol. d'accord bu ko defee loolu ñu bàyyi xel ni yoon lii ñuy waxtaanee wallaay buntu la bu lu du ubbi lu waaye suñu yàlla mayoon ñu doon ci doon wax. waaw ah, xam fukki waxtu daañu ci dikkaat wallaahi. Mhm. pour nit ñi comprendre. parce que ku bëgg yàlla bëgg yonent bi saa salaam ñàkk a xam tax nga tàbbi ci lii ñoom it ñi leen ciy dugal it xamuñu ndax àdduna rek te seytaane ndax na leen. kon nag nanu góorgóorlu dellu ci alquran. incha allah ñu dellu ci sunnatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lépp lu ci waay jëfandikoo na ko natt ci alquran natt nag buñ koy wax mooy ña xam waaye du Moussa yi mu xamul dara naan damay natt natt ña xam natt ñooy natt du dëgg mooy boroom xam-xam bi da ngay dellu boo ko xamul nga dellu ca ñoom boroom xam-xam yooyu nañu nungu critique waaye ndekk ci di def wala may wax comme ni may waxee ni ma njuum ci au lieu ñu ne ma juum nga ci wala ñu wax ma ko may di di dal di di di loolu it ak rëy lay indi. d'accord nag ñu ngi lay gërëm moo la. di la ñaanal yàlla su subhanahu yàlla yàlla sàmm la. amiin waay amiin yàlla yàlla aar la. amiin amiin yàlla yàlla guddal saw fan. amiin amiin borom kër gi d'accord. ñu ngi ñaan yàlla subhaana barke wàcce fii amiin yàlla aar ko aar njabootam sàmm ko sàmm ndax moonu may occasion bi lu mhm. dëgg mhm. te fayuñu ci dara mhm. bëgg jaami yàlla yi rek euh, gindeeku ci kon ñu ngi koy ñaanal yàlla subhaana di leen ñaanal yéen ñépp ñu fii liggéey nag incha di leen gërëm tabaarakallah di nuyu sunu saaz maajara maajara ñaan di nuyu sunu saaz saybatul hamdi di nuyu sunu <laughs> yaay suñu waa kër yëpp ñu ngi leen di nuy di leen gërëm en tout cas kontaan nan jërëjëf ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla gën laa dëgëral mhm. ba nu yàgg la fekk mhm. lépp lu ma ci juum nag sama matati rek mais lu baax rek la lépp baax na lépp loo xam ne nekk euh, lu jub la mhm. loolu yàlla subhanahu wa taala moo nu ko xéwal ñu def tabaarakallah ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla may tawfiq réew mi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dolli fi jàmm amiin amiin vague bii di ñëw te ñu ñëpp gisoon nañ ko muy ñëw te kenn mënu koo téye ñu ñaan yàlla mi mën a téye yàlla nu téyel lii amiin tabaarakallah bu nu ko téyelee ndax ñu am jàmm incha allah te jàmm ci la lépp xam hmm. mbir mi ñëw ñu dem ci jàmm génn ci jàmm te ah. incha allahu dinañ ci jàmm jàmm génn ci jàmm yàlla defal jàmm tabaarakallah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, Cheikh Ndiaye bu Thiès ñu ngi lay sant bu baax a baax euh, Cheikh Moussa Ndiaye hmm. yàlla na yàlla defal la sutura wax nga fi xam-xam wane nga fi te woo nga nit ñi ci yoonu yàlla xam naa sax li nga bëggoon wax lépp xaju fi ndax wax nga ko léegi waaw woo jinne yi ñu ñëw ci yàlla loolu moom yor wallaay loolu moom daanaka nag ku baax la ku yàlla baaxee ci wàllu daara gis nga li fi wax lépp dafa orienté nit ñi jëmale leen ci yàlla moytoo leen leen saytaane leen sacrifice yi nga xam ne dara baaxu ci dégg ngeen wax tam ci wàllu mbëri yeeg yu demee noonu kon nag mbokk lii rek moo doon waxtaan wi yàlla yàlla dellu lu jàmm wa rahmatulah rahmatullahi taala wa barakaatuhu jazakallahu xayran kontaan naa loolu moom jërëjëf kontaan naa